maam Cheikh li ñuy jariñoo ci sëñ bi moo ñu ci dimbale waaw ndax moo ko xam teel koo bëgg teel a yoon wi nga xam ku ci jaar mën a jariñu ci sëñ bi waaw te ba muy ak moom ca bi bi ko sëñ bi laaj ndax am nga sax nungu ko nungu ko woon wax ko sama ndey a ngi dund ndax bañ rek la bi ne ko demal yori sa ndey la la doon bañ nga da da ba ndeyam di ko wër ba fekk ko fa ah, sëñ bi na ko ah yow waxam ko ne ko ah dama doon bañ dama doon bañ nga dama doon bañ nga wax ma demal yori sa yaay mu doon gàllankoor ci man oh, te xam naa ne bu ma amee rek am lépp oh. <laughs> kon nag moom mu xaaxadu mu xaaxadatu ba mu defoon señ bi ci mbakki Kajoor mm-hmm. mosu koo firi benn yoon mm-hmm. ci loola la sax mm-hmm. mu uh, boole uh, guddeeg bëccëg di ko liggéeyal andi nag yoon woo xam ne xam na ne wii yoon ci la ñuy jariñoo ci sëñ bi te sëñ mënu ko waxal boppam waaw waaw yebal ko mu ñëw nag ngir wan nit ñi eh, yoon wi nga xam ne ko ci jaar li li sëñ bi yor nga mën cee jariñoo waaw moo tax eh, eh, loolu sëñ Fallu daa wax naan Cheikh Cheikh laa ñëw taalibe loolu tax mu di ko wax suuf laañee ci muñ <laughs> bu ko defee nag ngeen xam ne lu ngeen gis ci mbiram rek tuuti la ci mbiram ndax ci mujjug sëñ bi ñëw na ci sëñ bi ne ko ah Mbàkke maa dese nañ fi dara sëñ bi sëñ bi ne ko sëñ bi di wax ak kenn ba noppi daaneel ne ko Ibra Ibrahima Fall la doon wax noonu mu ne ko ndax dese nañ fi dara yëf yi daa neex lool de mu ne sëñ bi ne ko ah la ma waxoon ak yow ca Mbàkke Kajoor rek falaa ne mm-hmm. nee la woon li ba ñu tàmbali. dara ci adduna di boo ko bëggee duñ ma naan ànd nga ne ma bëgguma dara. <laughs> ndax lu ma lay fay alaaxira lay doon. nee naa la woon it mm-hmm. eh, eh, oh, sama mbir ak yow dama koy lëm. Mm-hmm. nga nangu. Oh, <laughs> non loolu foofu la suñ bi jaaroon ak moom.